asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV yi ñu ngi leen di nuy di leen ziar tey nag ñu ngi alxames le 20 août 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem yëg déglu yëglekaay yi li ñu indi ñu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 20 août 2021 dañu ñëw ci yëglikaay sunu lamb na xëy doo rekku yëglikaay bi nag tey dafa ñëw ci ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye numéro 2 mi nga xam ne ci ñaar fukki atam ak juróom benn maanaam daal mbër ma ca la nekk la nga xam ne moom moo di roi des arènes waaye yëglikaay ba tamit dafa topp Balla Gaye 2 ci ba mu dee xale ba tey fi mu toll rawatina nag jamono ja nga xam ne mu ngay def la nga xam ne nii moom moo di mécanique ak itam secret ba nga xam ne moo laxacu sa tur wa nga xam ne mu tudd boppam di Balla Gaye numéro un mel ni kii nag la nga xam ne daal moom moo di Balla Gaye numéro deux ak la wër lëk lépp tey sunu lamb xëy na tey toppal ñu ko mécanicien ba nag ne moom Balla Gaye moom moo nekk nekk li nga xam ne daal moom moo di métier maanaam nag fa mu dëkkoon wala ka ko yoroon boog maanaam benn dëkkandoo papam la woon nekkoon nitam ku ñu daan wax seex Ñang kooka moo ko yoroon ba pare sax Balla dëkkoon biir këram daan fanaan ak benn doomam mel ni ki lépp yëglikaay bi ñëw na tey dugal ñu ca ak na mu jógee foofa ba ñëw mu dénkaat ko nga xam ne moo di tubaabu joor mu di ko jàngal mécanique ca fa nga xam ne moo di ca kolobaan mel ni ki loolu yëpp yëglikaay bi da caa xëy tey ñëw waaye tamit Balla nekkoon na xale boo xam ne daal maanaam lii di babu fut waanaam ak PlayStation daal nekkoon na ay mbir yoo xam ne yu ko xanoon jàmm jàmm la yoo xam ne sax am njàngam bokkoon na ci la ko daan yàq ndax nag yëglikaay bi nañu Balla mu nga daan jànge école ba nga xam ne fa lay entraîné tey ba nekk fa champion muy école seize fa la daan jànge waaye njàng ma moom wàllum ba bi fut maag yu mel ni ki noonu daal bokk na ci la nga xam ne gën na ko koo yàqal ak itam derete la nga xam ne moo doon mbëri ja xam ne ba daan yëngutu des fois waaye itam yëglikaay bi toppal nañu Balla dinu xamal nekk koon xale boo xam ne daal bu dëgëroon boo xam ne daal maanaam dog wala am pànk koy àtte nañ loolu moom soo ko déggaan daan na jafe nga déggaat ko maanaam daal raaroon na ci Balla nekkoon ci mbedd di xeex loolu yëglikaay bi moom moo ñëw tey dina wax lu mel ne ki noonu ak itam ay secret yoo xam ne daal nekk na ci suwaawu turam woowu nga xam ne moom la tuddee boppam ci làmb ba mu ca duggee moom Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi daal tey ñëw na toppal ñu ci ki nga xam ne nii moo di Balla gëstul nu loolu kan ko defal nag du kenn ko dul ka nga xam ne moom moo di Abdoulaye Dembélé ba tey bu ñu continuer koo xam ne adversaire u Balla dëggantaan la ci làmb

wax ne na day dee moom ne na nii laa jàkkaarloon ak moom ne na yàlla maanaam yàllaa nangut rek waaye bu nangoon ba tey moom waxatun ma ne na dund na ca loo xam ne ni daal moom booy kay ah ku yebu daal jël si maanaam jóg te xam ne mbir ma moom lu am la ndax ne la mu ca dund moo tax mu xëy tey di wax lu mel ne ki noonu ka nga xam ne nag moom la ñuy wax Boubacar Gningue di président CLG bu Diofior moom itam mu ngay wax jafe ya nga xam ne moom la ñuy jànkuwanteel fa nga xam ne moom moo di ca joof yoor moom Boubacar Gningue daal moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu ci sunu lamb beneen xale boo xam ne tamit la muy jànkuwanteel la xëy di ko wax muy Batista numéro 2 nekk écrit xam sa cosaan ca Pikine ga ca ginnaaw raay moom nag la mu xëy di wax daal xale yi mbër ya nga xam ne wala boog mbër ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Kaolack daal la jàpp na dañ koy moytu di ko daw ne na daal quest ci tudd aw turam ne ko yaag Batista na ne na boroom seet foo xam ne fa lay jaar ngir seet nu muy def ba génn ca boobu combat moom moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu ba tey bu ñu ñëwee si biir yëglikaay bi dem ca tuus yi mu ngi nuy xamal ne daal ka nga xam ne moo di Aziz Ndiaye fi mu nekk ni daal mu ngi ci ay vacances am vacances nag yëglikaay bi nanu boo xoolee diggante Istanbul ak Dubaay ak fa nga xam ne moo de Abu Dhabi daal fal Aziz nekk dafa baagante di dallu maanaam di féexal boppam itam yëglikaay ba moo xëy ñëw dina ko wax bu buñ fa jógee dem les arènes les arènes tamit la munu xëy dina ko xamal moo di Boy Kayre manu wax nga xam ne moom lañ doon wax léegi Boy Kayre daal yëglikaay ba xëy na tey wan ñu ko ci photo bu fës mu nga sol lu weex tàll sol tamit maanaam koppateem mu weex yëglikaay bi nag booy Kayre dañ koo testé woon mu positif ci la nga xam ne moom moo di coronavirus moo tax Kayre mu ngay net lil boppam ne na daal dee moom ne na soriwu woon ko de parce que nag ne na daal dun na loo xam ne ni daal maanaam ñaari semaines yoo xam ne daal la mu doon yëg ak la mu doon gis daal lu doy doy waar la moom booy rek moo tax nag daal vaccin ba day daa mel ni moom hmm, mu ngay wax gaaya daal bu ñu yeboo jublu ca ku ko defu itam booy boo nga defi ko ndax moom la mu dund daal maanaam bëggul daal keneen dund ko te itam daal ñaanalu ko sax benn doomu aadama loola mu di ko dal ba mu koy dund ñam daal sax it mu ngi ñaan yàlla ñu jógee ca moom booy rek moom moo xëy tey seqi waxtaan wu yaatoo yaatoo yaatu ak yëglikaay bi nga xam ne moom moo di les arènes ci xalima ka nga xam ne moom moo di Abu Ndour les arènes ba tey am na keneen koo xam ne xëy na tey wax fa muy ka nga xam ne nii moom moo di eh, Balla Diouf Balla Diouf nag la mu xëy tey di wax wala ko mu xëy tey dal ci kawam wàcce ko moom moo di Gris Bordeaux yëglikaay ba moo xëy tey seq ak moom waxtaan moom Balla gay numéro 2 que seq ak moom waxtaan nag moom mooy Aysatu Fay madame ñaa yëglikaay ba nag xëy na tey dalal Balla kon wala ci xalima ak Aysatu yëglikaay ba di wax wala Balla di wax Balla daal ne na Ama de ki nga xam ne nii moom moo di Gris Bordeaux ak Lac de Guerre numéro 2 la tax ñu dugg ci association des lutteurs en activité ne na lan ne dong la ne na jamono ja nga xam ne maanaam seen CNG dafa daloon ci seen kaw daggoon leen ay millions yu baree baree bare ne na ñun ñu taxaw sol sunu dal ngembul leen di leen xeexal ne na xeex booba nag bañ ca jógee ba jëlee ci ndam ne na ñoom loola moo leen dugal ci la nga xam ne moo di association ba ñëw na tamit di metti loo xam ne wala boog mu ngay wax loo xam ne daal jàpp na ne 10 millions la yoo xam ne fukki millions yoo xam ne ministre bi jox na ko te itam fukki millions mel ni nañu ko bëgg wala boog la ca leer bariwul Balla Diouf daal xëy na tey di wax lu yaatoo yaato yaatu ci mbir mooma Gris Bordeaux tamit wax na ne daal moom giri depuis bañ ko falee ci consensus ba tey ñu waroon def assemblée générale nee na ba tey giri nangu koo woote ñu def ko taxawal bureau nee na benn daje lañ fi am seekaca te bal ne na loolu dara luñ fa jëlee lu am njariñ amul moom Balla Diouf nag mooy wax du sama ay wax ci yëglikaay ba nga xam ne moo di les arènes ba tey boor Bordeaux mooma nag mel ni ki daal loo ci mën a dégg même bu fekkente ne tamit ci wàllum làmb ja muy bëre ba bu cay am ay contre performance tamit giri daal maanaam loo ci mën a dégg tamit mu nga ca làmb ja rek di bëre di am ay combat yoo xam ne daal yu baax a baax la yëglikaay moo xëy tey ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki kenn koo xam ne ni moom ab saison mi tam na wala mu baax ñu naan ko Ibou Senghor numéro 2 di gaan sec yëglikaay bi nee na ñetti galaa gañe na ko ren mara boog maanaam ñetti galaa yoo xam ne daal moom la gañe yëglikaay ba limbal ñub xaalisam ci lu toll ci un million yoo xam ne daal tegal na ak ñetti nag kenn koo xam tamit ab saison baax na ba yegg ci lool muy Ibou Ndiaye Obali waaye moom la mu xëy di wax ña muy waxal mooy waa CNC nee na daal ñoom waa CNC bi yore làmb ji waruñoo sa kenn nan la da ngay ñàkku par force nee na ñàkk moom dañoo war a bàyyi ba nit ki yëgal ko boppam dem ñàkku ji ñëw na tamit ca la mu gañe moom obali nee na jël na juróom-ñaari gala set gala jël na ko am na ci xaalis tamit lu toll ci quatre million deux cent mille yëglikaay ba mu xëy tey ñëw dinu ko wax mel ni kii moom ëbbali tamit mu nga xam ne daal saison moom bég na ci lool am na ci tamit contentement na nga xam ne nii daal noonu la ca dugge ak na saison ba jeexee ñëw na tamit ci VIP ak seen association ba wala boog association des lutteurs ni yëglikaay ba dalal ko ba tey moom ëbbali ne na association boobu moom soo ko déggee pour les VIP la moom daal noonu la ko gisee moom ëbbali ni tamit ñëw na ca moom ak ñi nga xam ne jàpp na ne ñaar ñooñu wax nañ ci moom ba ci Bekaay Mbaye muy ñett ñoo xam ne ay kilifaay làmb lañ këc ñaar ña bëri nañ ba bàyyi bëri di ay mbër yu mag kenn ka nekk reporter boo xam ne bu mag a mag la te nee na ñooñu ku ci nekk bàyyi nga xel la may def ne na kon moom la ko war daal muy mu góorgóorlu te yaakaar na ne ci làmb la bokk loolu mooy waxe ki nga xam ne nii moom moo di óbbali waaye tey fa may jeexale mooy yëglikaay bi fan yii wala boog sunu làmb lay jeexale ginnaaw nag ñamu indi woon a poster bër ki dem muy waa CNC tey nag les menaces la xëy tey daal indil ñu leen mu mel ni ki daal seen président Bassirou baabu moo jiitu ak ña ca topp ñëpp ba ñu jeex manager yi nga xam ne ñooy signeel mbër ya xaalis génn ñu doog a mën a bëree. ah jërë ngeen jëf kon mbokk yi tey comme ni ma leen ko waxee sànq léegi ñu ngi ci aljuma di bés bu sell di bés bu nga xam ne macha allah bésu ngëneel la euh, tombeek nag di aljuma ji nga xam ne moom moo jëkk ci euh, ginnaaw bi nu màggalee tam xar gi. Euh, bërki démb ba pare ñu ñaan yàlla lépp li nga xam ne ñaan nañ ko ci li nga xam ne nii moom moo di tamxarat boobu yàlla na ko yàlla nangu barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ziar ñëpp si ajuma ji balu ñëpp àq di wax nag que ni rek yàlla nañu yàlla te mu ànd ak euh, tal ak man-man yàlla mën na ko yàlla na ko def ñu fi jot a bàyyee ko wujju seen borom tamit yàlla na leen yàlla yërëm te xaaral leen aljana ñi tëdd feebar yàlla na leen yàlla yëkkati ñi nga xam tamit ñu ngi ci kaso yi yàlla na leen fa yàlla génnee yàlla leen fa yàlla génne te képp koo xam ne xëy na da nga defoon lu tax yoon jàpp la muy loo xam ne lu jaarut yoon la yàlla na yàlla walbati la boo génnee ba teg la si yoon wi nga xam ne mooy siraatal mustaqim ba jàmm maraam parce que loolu mooy li gën yàlla nañ ko yàlla defal defal ko bépp doomu aadama euh, teg ci yoonu siraatal mustaqim tey nag fi ñuy njëkkee mooy sunu làmba fa la njëkkee ak ki nga xam ne ni moom mooy Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi ñëw na ci moom tey ci xëtam mu njëkk photo ba ngeen di gis bi muy bëri ak Gris Bordeaux la stade Léopold Sédar Senghor Zizou boobu la defoon noonu bopp bi ñàng trop bis boobu tey yëglikaay bi topp Balla nag ca ba mu nekkee xale école sis ba mu jànge fi mu jaar ci enfance am nekk mécanicien nekkoon xale boo xam ne daal macha allah ba tey tamit ni mu nekk roi des arènes bi mu koy nekk am ñaar fukki at ak juróom benn yëglikaay bi tey loolu la ñu toppal bi mu ñu ko toppalee nag ci biir boo xoolee Balla fi mu maanaam ki élève ki ki ko yoroon wala ki ko doon jàngal wala ki ko yoroon boog xaritu papaam la woon nekkoon voisin ñu doon ko wax Cheikh ñan si yëglikaay bi moo xëy tey di ñu ko wax di ñu xamal ne Balla dëkkoon na foofu dëkk ak doomu kooku daan jàng mécanicien ba benn moment mu jóge fa dem fa nga xam ne moom moo ci atelier tubaabu joor lépp papam yóbbu ko fa mu fay jàng métier euh, continuer métier papam dëkk jaay këram gi waaye dëkki Kër Massar mais xam naa aller bi metti woon ci Balla mu ne Kër Massar ji daa sori far mujj di yem géejawaay ba gis nga tey yàlla li mu mujj def waaye tamit yëglikaay bi mu ngi xamal ne nekkul woon xale boo xam ne euh, bu tële woon boo xam ne daan xeex lu bari Balla nekkul woon genre yooyu daawul xeex lu bëri ba tey yëglikaay bi moom moo ñu toppalool diñ ko wax yemu ca tamit ne nañ bokkoon na ci li ko xañoon jàmm yàq jàngam moo doon wàllum baby foot ak PlayStation ah yooyu la maanaam yooyu nekkoon na lu ko sonal ci enfance am yooyu nag bëri na xale yoo xam ne sonaloon na leen baby foot ak yooyu <laughs> yaa ngi dégg loolu xale la mais bon gis nga du tere mm, xale mooy nekk lu ne ëllëg gis nga tey bala Gaye de quelqu'un la tey nekk na bi nit bi nga xam ne tey kilifa la personnalité la macha allah kon moo lay wan ne rek xale euh, xale xale la tudd rek waaye la ndongo la waxoon yal na ko yàlla yaram noonu xale yi doon lu ne ëllëg tey defe naa ne euh, roi des arènes athlète macha allah addina bépp xam ko tey booy xër booy wër tey mbër yi gën a populaire Sénégal ah dëgg yàlla boo boo mënoo ko génne ci les trois premiers ci lay bokk. par A ou parce que loolu lu mu def la kon loolu moo lay wan na itam xale dina am ay jaar-jaar mais tamit du tere bu màggee buñ ko tegee ci yoon rek mën na am fu mu war a mën a jaar ba doon dara defe naa loolu lépp tamit ci ordre ay waajuram la woon rawatina papaam waaw muy koo xam ne daal macha allah carrière bi jaar-jaar bi baax na carrière bi riis na tey macha allah gis nga fi mujjee kooku mooy Balla Gaye yëglikaay bi tey moo ñu ko xëy toppal hmm, muy lu ama am solo waaw muy lu am solo ba tey bu nu continuer beneen bi ci des sa balaa may jàll mooy ci côté xeexu boobu xam nga am ay xale yoo xam dañuy mel ni balde bu ñu nekk xal dañuy xeex rek atte rek guddeeg bëccëg doo mënee su ci dara un deux trois ñu ne toogal danañ nag Balla loolu dalu ko mais bu loolu buñ ko waxee dinañ ko mën a gëm parce que ñun fekke wuñu xaleem ndax ñun boobu xëy na ñu nga dëkk ba ñëw guñ Dakar bu ñu nekkee Dakar tamit xamuñu woon ko mais l'essentiel ko boo ko gisee moom wala bu ngeen waxee ak ni muy doxal di nga xam ne kii nekkul woon koo xam ne ku dëgër koo xam ne ku kii la daal kuy xeex lu bari la bay nekk saaru kii yooyu waaw xëy na bu dee làmb nag dina yëngal affaire yooyu buñ fa jógee dem ci wujjëm bi nga xam ne bu ma nee wujjëm parce que ci sport bi laay wax muy Modou ñoom ñaar ku ne xam ne seen diggante adversité bi ci am yombul nga gis ko te loolu mooy neexlu sport ay adversaire de taille lañu Balla ak Modou Modou moom tamit yëglikaay bi ñëwal na ci ñu moom tey ne ñaari at yu teglantoo ba mu jëlee roi des arènes léegi bëriwut muy lu jëkk yëglikaay bi wax ñu ko lool nag ku ne xam na cause bi du bëgg bëgg Moodu du bëgg-bëggu promoteur yi du bëgg-bëggu waa làmb mais leen na ko waral jël na roi des arènes kombaam taxaw ak Ama Baldé ñu war ko bëre ca bu teel yàlla dogal am ndok dal promoteur ba yemuñu ca yàlla indiwaat ndok moo xam ne sax yemut ca promo àddina bi la dal muy coronavirus ñu dàq làmb ja ba far tey gis nga ñu ngi ko jàpp mois de décembre yàlla nañ ko fekkate tal ko décembre des na pour ñu mën ko bëre mais wax dëgg yàlla bu ñu sañoon tey gisaat Modou Lo mu wàcc en tant que roi des arènes bëre jongantewaat couronne bi ñu xool fan lay mujje waaye nag jaam ak pexem mais yàlla moom mooy dogal loolu moom ngeen di gis noonu Modou ci angalu écran bi noonu ba tey bu ñu continuer ci écran bi dina gis Boy Kayre boo xam tamit coronavirus bi laaloon na ko waaye nag a ah, nee na day Boy Kayre nee na sori woon naa de nee na tuuti kon rek daal lu ñaaw am mais nag heureusement la ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax yow itam sunu papa nga joo xam ne ah dañ lay ñaan rek nga yàgg fi te itam exemple nga ndax doo dégg booy kayre wax wax wax lu ñaaw non non non te itam xale mbër bu mu gis dina la conseil ku mu gis sax nga yor micro ñun ñii sax daf ñuy conseil itam kon ku mel noonu newuñu bu doo feebar ndax feebar yàllaa koy tege waaye nag dañuy ñaan yàlla bu la dare rek yàlla na nga wér ak jàmm waaw loolu lañ lay ñaanal keneen koo xam ne tamit ci tuus yi wala boog waaw ci tuus muy Aziz Ndiaye waaw moom mu ngi ci ay vacances am entre Istanbul Istanbul bu ñu koy mooy Turquie Dubaï ak Abu Dhabi waaw c'est normal nit ki tamit boo dee liggéey nekk ci at di ci liggéey liggéey liggéey ba kii am nga droit nag bu la yàlla dimbalee nga dem nag ut foo dalloo ji balde vacances ndax man mi sama ngi bëgg a vacances de maa ngi koy pare de pour téléspectateurs yi nañ ko bàyyi xel faw ma am fu ma làqu ji tuuti waru noonu Habib ah mooy yoon voilà bu ñu continuer jóge foofu ñëw les arènes kan fay fekkaat mooy booy kayre gis ngeen ko Euh, mu solo noonu lu weex macha allah yëglikaay bi dalal ko moom booy kayre muy wax ah ah euh, nee na c'est frôler la more mais heureusement père yàlla na fi yàgg te wér loolu lañ lay ñaanal comme ni mu ko wax rek mag mu baax nga waaye nag nee na dund na semaine yoo xam ne nii moom ak coronavirus bi moom mu ne na doyoon na waar waaye gis nga yàlla bu bu ci tudd sa faatu tamit doo faatu ah am na ñu mu dal faju nañ ba wéraat nekk ci seen ay kii di dox seen di dem seen parce que feebar moo tëddee am na ñoo xam ne sibiru moo leen faat te li muy faat bëri na am na ñoo xam ne bopp buy metti ku ne am na loo xam ne cause buy indi sa de am na ñoo xam ne dara dañ naan dara jotu leen fi lañ nekkoon parce que loolu namtee fu suñu borom la ndax la ko waral mooy ah la mu waxoon moo mooy dëgg rek te yàlla lu mu wax du dañ maanaam bakkan bu ñam dund ñam de lu tooy da nga wow loolu ay waxam la loolu nag bu amee waaye nag ku feebar fajul faju na wér na macha allah yàlla na fi gën a yàgg per Kairé waaw Balla Diouf tamit gis ngeen ko Balla Diouf descend Gris Bordeaux maanaam wàcce na ko xëy na nag di wax moom Balla jotoon nañ ko fi dal am na mu jotoon wax ci seen association beeg ni muy doxee wax na tamit ci biir yëglikaay bi ne ne Gris Bordeaux ak Lac la leen tax a dugg ci association bi ne na la tax Balla leeral na ko de moom mooy wax nee na dañ leen daggoon xaas yu baree bari seen seen defoon ko ne na ñu taxaw di leen xeexal leen xeexal ba li am am ñoom ñu dugg ci association bi ne na nag ba mu jiitee ba tey ne na ah dañu ko jiitaloon ci consensus ñu waroon def assemblée général mu waroon ko tenir maintenant boobu ba tey furaas dalli xëdin gi di nangu koo def pour ñu tànn bureau bi ne nii ak nii lay doxe ñëw na tamit ci 10 millions yoo xam ne bi jox na leen ko 10 millions yooyu tamit Balla ñëw na ci yooyu yëpp ñëw na daal ci ay mbir yoo xam ne yu yoo xam ne daal ah mais li ma leen di wax rek yéen yéen a bokku teen bi te ñu bokku teen ñooy laxasoo ay goj kon li gën mooy ngeen jéem a waxtaan yéen parce que yéen ñëpp ay kilifa ngeen yéen mbër yooyu ne ci kaw ak ñi ci suuf euh, surtout tamit ngeen jéem a gën a di waxtaan ak seen rakk yi seen rakki mbër yi loolu tamit am na solo parce que euh, àddina waxtaan rek mooy tax yenn situation yu bare bare bare di leer bu ngeen dee discuter rek pour man yu bëri mën na faju Gris Bordeaux moom tamit hmm? waaw contre performance yi malgré ay contre performance yu bëri maanaam euh, ñàkk am kii bi maître wut mu ngi bëre loolu nag li ko indi lenn la gis ngeen mooy loolu la ñu yëglikaay bi bindal mais li ko indi rek lenn la pour man encadrement tamit yor na ko bu baax moom Gris doo te itam Gris Bordeaux du ñëw ci bés nag nga ne entraîné wut wala joxut bés bi xam loolu moom dalagu ko ci làmb ñu ci li ñu xam wala li ñu seetaan waaw euh, beneen xale boo xam ne Gane Seck tamit gis ngeen ko noonu Gane mooy Ibou Senghor numéro 2 ak li jot a gagné ak yu mel noonu li ci sama Ibou Ndiaye Obali moom tamit ak fi mu jot a jaar ren ak la def ak ñu wax ci moom am ci moom yaakaar ëllëg muy Tafa Gueye di Yékini di Bécaye mbay defe naa nag ñu mel noon bu waxee ci yow la la war mooy nga xam ne kon yow Ibou Ndiaye am na lu la war am na noo war a taxawee nga gën a sérieux ci la ngay def ndax itam ñooñu mën nañu gis ne am nga talent te am nga talent mbër piir nga waaye nag dafa am lu lay sàmm lay sàmm nag yaa ñu ko gën a xam kon boo bëggee nekk quelqu'un ku mel ni Yaxya Jóob Yékini ëllëg wala quelqu'un ku mel ni Tafa Gueye ëllëg wala quelqu'un ku mel ni Bécaye mbay ci wàllu micro ëllëg il faut être sérieux loolu mooy li nga xam ne ni moom laa lay wax yow Obali Ibou Ndiaye ma koy nuy di nuy waa Diofior yépp rawatina suma soppa yi foofu rawatina monsieur le maire suma doom baay bi wala suma jooju ñu naan ko Youssou Diom di maire maa ngi koy nuyu di nuyu njoomeen yi dëkk Diofior yépp mais di nuy askanu Diofior waaw faw mu nuyu leen parce que mu faa bëri mbokk njoomeen yaa nga foofu waaw waaw noonu la demee di eh, ñëw tamit ci dernière image yi nga xam ne tey mm, damay dell suñu làmb gis nga image boobu mu leen andil ah les menaces sa tey ci la ñëw gis nga Père Basirou Ba gis nga Abdoulaye Ndiaye ñoom Matar ñoom mbay Thioune ah menaces yi ñoom alin Gueye ñoom Père biram ñu ngi ñoom ñëpp di ay menaces ah ñu ngi ci biir ñoom Pape Diagne macha allah muy ñoo xam ne tamit ñii ñëpp ay nit yu baax lañ Père Ndiouga Dia Abdou Bakhoum ñoom ñëpp macha allah ñii ñoo xam ne ay yu baax lañ les ménages nga xam ne ñoom itam ñuy sonn ci mbër lañ ndax ñii ñooy topp mbër ah, di ko encadrer mbër mi fayeku cinquante mille ñu ko encadrer tey ay million te bëri na ci ñoom ñoo xam ne ñi ma lay wax ménages yëpp ci ñu ne jaar nga foofu ak mbër macha allah muy ñoo xam tamit ñoo am solo lañ ci làmb les ménages ndax ñooy signé yi au niveau du CNC waaw euh, kon tey loolu moo fi ñëw ci yëgle kaay di leen bal wax yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm te di ko saaku si di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla jàmm waaw ah ñu ngi souhaité suñu équipe bu beach soccer bi nga xam ne mu nga ca beach soccer bi di ko jongante muy football place boobu yàlla na ko ci yàlla may ndam yàlla na ngeen ko indi fii ci Sénégal coupe du monde boobu ndax loolu moo leen dese ndax Afrique moom yéen a fiy seef ci beach soccer bi loolu la yàlla dogal coupe du monde baa des équipe bu basket bi tamit coupe bu basket ci góor ñi gëj na dugg Sénégal 97 ah boobaag tey bal da yàgg na tax xam na kon nag tey ki moom moo leen boot di capitaine bi di suma xarit di Youssou Ndoye maa ngi koy ñaanal yàlla capitaine am boobu ñu ko tabb yàlla na ànd ak Coupe d'Afrique buy ñëw yaa ngi dégg loolu lañ leen di ñaanal aussitôt tiraasu Coupe d'Afrique bi def nañ ko ki démb ca Cameroun gis nga Sénégal ñoom bokkal poule defe naa ay Kenya la ak ay Guinée Conakry rek yooyu Guinée ak senegal xam nga derby la ñu ñaan tamit Coupe d'Afrique boobu buñ ci yeggee ca Cameroun ah yàlla na koy yàlla na yàlla dogal ñu andi ko muy première fois parce que tamit soxla nañ ko te génération ñoom Sadio Mané ñoom Gana Gueye ñoom Saliou Ciss vraiment bu ñu soñoon balaa ñu fay jógee wala balaa ñu jeexal seen carrière dañ indil ñu coupe d'Afrique ba wëri coupe du monde loolu la ñuy ñaan di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm